seen équipe communication junnatun liman nazamahu tey moo déplacé wu ñëw fi nga xam ne mooy surra man raa ngir lan fas yéene indil leen lépp li nga xam ne dafa nekk ci quartier bii di surra sama gannaaw nag li ngeen di seen noonu ndox mu baree bari moo fi nekk ba ca kanam sax seen ngeen waa sapeur pompier ñoom ñoo nekk ci côté boobu te sama ndeyjoor boo jegee mbedd bi def nañ lu mat juróomi mbedd lépp ndox la sama càmmooñ tamit boo jegee mbedd bi bor boobu yëpp tam ndox la ngir nu mën a xam nag ndox mi nan la def ak ñi dëkkee surra daanu dugg ci kër yi laaj leen nan lañu dëkkee ak ndox mi lan mooy seeni jafe-jafe yan barab moo amoon ndox te mu génn ak yan barab ñoo am ndox ba léegi salaamaaleykum mbokki jonatun ñoo ngi leen di nuyu bu baax a baax te di leen siyaare te leen jégglu di leen masaw ci coono bi ngeen dox ba egsi fii di saytu suñu jafe-jafe ci diggante ndox mi nekk nii ah fii nag ci carte Touba Soura la man maa ngi tudd Xaarim Tall fii ci carte Touba Soura la nga xam ne dañ ko mën a wax Touba Soura ak Guédé diggante Soura ak Guédé la nekk xam ne boo doxee tuuti da ngay dajee kër sëñ Bass Abdou Khadir mi ngi fii première mbedd deuxième mbedd kam bi Soura yi nekk nii man xam ne mañ nañ sëñ Omar Bousso moo ñu seq ak sëñ Abdou Khadir ah fii nag ni ngi nekk ci jafe-jafe ndox ba waag depuis màggal ba léegi ñu ngi jafe-jafe ndox ndox mi mi ngi sonal kër yi kër yu bëree bëri génn na fii li fi nekk ci kër yu bëri yi génn ci bëri na trop ñu ngi wax sax ne am na kër yi ci koo xam foo xam ne nii fii dañoo wax ne jaan dafay nekkoon bi mu dawee xamuñu fi mu dugg ci biir ndox mi kon fii ñu ngi ci dansé ci dansé lañ nekk euh, ñu bëggoon nag ku ñu dimbali ci ndox mi nu ñu def ba mu génn li fi génn ci ay kër nag bëri nañ man boobaak léegi bi sama tànk da doon métti waaye bi ma xawee tane ak léegi munum bis saa bu ma xëyee ci kër gi lay xëy yoo yaag may mat ñii di yor télé bi yaakaar naa ne daje nañoo man fii léegi may wokkatu yoo yaag may mat fu ne maanaam ñi fi nekk ñëpp daanaka feebar nañ gën a wàll gi feebar nañ li fi génne ci kër moom mënu kenn mënu ko wàññi moom boo xoolee fii ba sa ba fa sa bët yem lépp ci am ndox lañ nekk te ñi fi nekk ay néew ji doole lañ maanaam li li tax ñu néew ji doole mooy mënuñoo génne ndox di ko yóbbu feneen waaye ku nekk mën ngaa defar sa waaye ndox mi moom li fi mën a génne borom doole ko fi mën a génne wala état kon ku ñu buñu sañoon ku ñu dimbali ba ndox mi jóge fii ngir yàlla ak jëmmi Serigne Touba nga xam ne tax a bàyyi dëkk maam yi nekk fii lañ xam te fii lañ dëkk ginnaaw fii lañ xam nag fii lañ dëkk buñ sañoon ku ñu dimbali ba ndox mi mu jóge fii yéen ñi fi sëñ Muntaxa yónni maa ngi ñu nuyu di leen ziyaare di masa coono yi ah ñun de ñun waa Touba Soura de ñu ne jaaxle nañ lool waaw ndax suñ kër yaa ngi nii am ndox amuñ fuñ tëdd amuñ fuñ euh, fuñ toggee lekk bu ñu dem ci bu ñu dem marché jigéen ñi wéru di sax bi ñu dem marché dañuy xuus ci ndox mi te loolu dansé la ndax lu ne mën na la cee dal lu ne mën na la cee dal nga yor ay xale yu ndaw ñoo xam ne nii féreguñu sax amaguñu euh, ay deux mois ak ay trois mois te lu ne mën na la cee dal waaw ñu ngi nii bi ñuy tëdd dañuy naan fanaan nee na dojj ci yooyu yooyu ngat na ba bëgg a dee dañuy màtt ak lenn lu ne te lu lépp daanaka ne mën nga cee feebar feebar bu garaaw te amoo loo ko am na ñoo xam ne nag ay néew du doole lañ. ci liggéey bu rafet bi ngeen di def di wër kër yi eh, ak li fi nekk ak eh, li taay ci mbedd yeeg ak li kër yi jànkonteel fii nag gis ngeen kër gi li mu jànkonteel moom ñun ñoo jënd suñuy pomp Euh, wut suñu gasoil di lekk suñu courant da ci def waaye nag ndox mi daal sonal nañu lool wax dëgg yàlla mbedd daa fees del del bay wal di dugg ci kër yi loolu daal mooy sunu problème bu mbedd yi jeexoon daal moom jàpp nañ ne kër yi dootu am ndox moom waaye kër yi fi ni yaa ngi ko yow yaa ngi ko jox bopp bi bu set nañ ko mën a ñetti yoon wala ñeenti yoon bi set ñetti yoon wala ñeenti yoon daaw la ko njëkke woon daaw defe naa ne fii bu mu saan rocc rocc pompe bi gée heure gee laay laay rocc pam bi dem tëddi bët seetee bu ma xëyee nekkaat yi ba so loolu laa nekkoon daaw tout la nawet ba nawet bi jeex ak sama sët ñoo fi bokkoon nekk noonu borom kër gi nekku fi dafa génn sama rakk la nekku ah, ren jii dem ba Salick ne ko ren la gën a ci daaw sax moom. man ku jege laa tudd dëkk sura ci kàmb yi ndox mi nag wax dëgg yàlla sonal nañ ñu lool buñ sañoon nit gis ku ci dimbali ndox mi ci mbedd yi daal mooy dugg ci kër yi. bu bu set ñu ngi ngacc machine baa ngi ne tege bu ngaccee ba bàyyi bu guddee mu ñëwaat soon nañ ci lool ñu ngi ci nag tàllal loxo ngeen dimbali ñu ci ben ndox mi ci mbedd mi mooy moo wër fii yëpp sura gi yëpp moo ko wër te day dugg ci suñ kër yi kër gi ñu dendal tamit fi la ndox mi jaar di dugg ci kër gi buñ ngaccee buñ ko ngaccee nii guddi buñ xëyee mu feesaat dell soon nañ ci lool nag ñu ngi leen ci tàllal loxo daal dool ñu cee dimbali. kuréel bi nga xam ne sëñ Muntaxa ko taxawal muy waa du wax dëgg yàlla seen liggéey rafet na lool ñu ngi leen ci jaajëfal bu baax di leen ci sant di leen masawu tamit ci coono yi ndax soon nañ ci lool waaw gis nañ seen taxawaay rafet na man maa ngi taseeg ñoom ñu dox ci naaj wi di wër te yàlla sant nañ leen ci daal bu baax a baax. man nag maay sëñ Aliou Fall mm, Bichri di jàngale fii ci kër sama maam sëñ Aliou Fall jàngkat. Euh, ñi ngi sant bu baax nag euh, sëñ Mountakha di ko ñaanal mu yàgg fi lool waaye nit di ñaanal ñi nga xam ne ñoom la àndal liggéey bi ñuy waa kuréelu junnatu bi nga xam ne ñoom ñoo ci def liggéey bu am solo ndax ku gis suñu bërëb bi rek ni ngeen ko fekkee nii ci ndox mi des na ba léegi. ndax taw bi mu tawoon sax surtout bi gàmmoo ba noppi moom fépp moom boobu sax am nañ semaine boo xam ne gone yi jàng si waaye nag bi ma gisee ñu junnatu tàmbali seen liggéey bi daal daanaka ñaari fan ñett bone yu bari mën nañoo ñi ngi jàng si ba amaan na sax ci daara yoo xam ne ñëwoon nañ fi di jàng si ci ginnaaw bi ba ñoom it eh, seen i daara ban ngàcc nañ foofu ba ñoom ñu delluwaat seen daara kon loolu it eh, day wane ni rek junnatu moom liggéey bi nga xam ne moom la leen bi dénk eh, ñi ngi ci am taxawaay bu am solo liñ gis daal mooy mooy liggéey bi moom taxaw bi am na solo. duñ def lu ñaanal leen ba fa ngeen bëgg a yegg it sama borom yeggale leen fa ndax wax dëgg xam nga jàngalkat moom bu xëyee bu xëyee gisut ñam yi jàngal du am lu ko gënal surtout koo xam ne amul benn yitte bu dul jàngale ak gone yoo xam ne amul jenn yitte ju dul jàngi jàngalkat bu xëyee gisut gone yi rek jafe-jafe mën naa am waaye gis naa ne daal man bi liggéey bi commencé ci diir su gàtt gone yëpp a ngi jàng si ba yeneen daara yi ne sama ginnaaw nga xam ne ñoom mi dañoo tëjoon faf sax ñoom commencé nañ di jàng si kon loolu day wane nii rek liggéey bi moom mi ngi mi ngi jëm ci kanam nag yàlla na leen sëñ bi fayal boppam te taxaw leen ba fa ngeen bëgg a yegg ngeen yegg fa